mën ngeen a abonné ci seen chaîne YouTube Bawol Info TV ngir ngeen di mën di déglu seen revue de presse ak Abdou Khadre Seck dali jàmm ñoo ànd xëy yér yéen i ñu xëyandoo yéen i kaay di réew mi ko di xëy ci li nga xam ne jamono ji moom la ñuy ŋawta ŋawtee ci réew mi te di ko waxtaane muy marché gré à gré bi nga xam ne ministère bi ñu dénk wàllum environnement moo ci jënd ay armes yoo xam ne toll na ci 45 milliards gouvernement bu Sénégal nag bi coow li bëree pënd bi wuri maanaam andi na ci ay leeral ñoom nee mënuñoo jënd ay arme maanaam génn ko ci mbedd mi te ministère bi ñu dénk wàllum environnement dafa am direction bi nga xam ne mooy eaux et forêt ñooñu dañuy soxla li nga xam ne mooy ay ngàndaay bu passé tamit eaux et forêt conservation des sols ñooñu tamit dañu koy soxla ba ci parcs nationaux yi waaye nag li nga xam ne moo am ba de sala scandale moom kenn munu ko cay génne bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne mooy journaliste bii di asan Sambo ndax nee na contrat la yoo xam ne maanaam lëndam na lool te bu dee am na benn laaj boo xam ne war nañu ko laaj mooy direction eaux et xeetu ngàndaay yi ana lan la ñu koy doyee te nag ñëpp xam nañu ne fi nga xamante ni daal maanaam ñàkk kaaraange ga ma nga mel tuleeg mali armée nationale bu Sénégal moo ko daal di res te lu soxal wàllum surfacturation loolee tamit xel tey na ci lool ndax dañoo jàpp ne mbir mi daal maanaam surfacturation am na ci te nag lu jëm ci wàllum corruption tamit kenn mënu ko caa daal di dàq situation bi nga xamante ni nag moo am nii ci lu jëm ci marché gré à gré quarante cinq milliards yi maanaam lim ñuy fàttali rek mooy contrat pétrole yi nga xam ne signé woon nañ ko fee bu ñu sukkandikoo ci Assane Samb ak Petro-Tim yéenekaay gi di 24 heures ñu xëy fekk fa Cheikh Tidiane Dieye nee nag dafa am loo xam ne askanu Sénégal war nañu koo xam bu ñu gëm lii nga xam ne moom la gouvernement bi di wax ndax gouvernement bi lii nga xam ne ñoo koy wax jëm ci wàllum secret défense dara amu ci ma la du dëgg am na ci loo xam ne ay kàcc la ndax nag li nga xam ne mooy décret code des marchés publics dafa am lu leer loo xam ne moom la wax jëm ci wàllum secret défense secret teggi na ay ngàndaay seen ginnaaw bandaga ndax ci biir décret bi amul benn yoon boo xam ne maanaam tudd nañ ci eaux et kon nag bu ñu bëggee gëm loo waaw nan ñu eaux et forêts xaw ma secret défense loolee du dëgg ndax ci biir décret bi mën na la eaux et forêts nekku fa te nag li nga xam ne moo am ba de sal malversation scandale te nag lii mën na la gis nga gis nga lii maanaam mbir mu doy waar doy waar la waaye nag du ñu wax guleet ñi nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall yàgg nañoo def ay njombe ay détournement sàcc alalu askan wi dara du leen ci fekk Abdoul Mbaye nee na scandale munte weesu lii mën na la deeru gi yàqu na ci àdduna bi ginnaaw Petro-Tim deru Sénégal jamono ci nga yàqu ci marché quarante cinq milliards gré à gré jëm ci wàllum arme yéen a kaay gii de libération nee na ko wax lii wax la sene sa mën na lay gis nga marché quarante cinq milliards bii doy na waar génn xeetu doy waar koo xam ne maara day tale danag moo ne gouvernement Sénégal ñoo ngi wax secret défense waaye yow secret défense boo xamante ni arme ya wax mën na la ay vélo nga ay bus ay tracteur la na waar génn ñoom ñoo ngi leeral waaye li gouvernement bi waroon na leeral mooy implication trafiquant nigérien bii nga xamante ne jamono ji ñoo ngi koy wër mën na lay gis nga ki nga xamante ni moom la état bu Sénégal jëflantee la ci lu jëm ci wàllum arme yi doomu Nigéria la te nag maanaam njombe gu rëy la def Nigéria moom mii ba jamono ji sax maanaam ñoo ngi koy wër lu toll ci soixante-seize milliards la daal di détourné ca Nigéria mandataire jamono ji moom la ñu daal di lal ci ak ndoddam kookee mën na la nit ku lëndam kookee di trafiquant ana nan la nag réewum Sénégal mën a jëflante ak mooma Abdoul Mbaye ne deru Sénégal kay moo yàqu ci àdduna bi yéen a kaay gi na ko may moo yeggale waaye nag li nga xam ne moo gën a doy waar ci contrat bi mën na la gis nga gis nga gis nga amul benn prix boo xamante ni def nañ ko ci contrat bi lii nag maanaam kan moo ci mën a génnee surfacturation yéen a kaay gi de la vrai journal xëy duñu xibaar naan ñu gouvernement bu Sénégal ñoom jéem nañu si indi ay leeral waaye amuñu kenn ku ñu yay mën na la gis nga ñoom sax dañoo a dugal seen bopp yéen a kaay gi de réew mi quotidien bàyyi mbir HLM da leen faa bëgg a jëlee ñoom lànk nañ ba tëdd sa naaj di ko woo nag ci lu jëm ci wàllum concertation maanaam wàllum waxtaan yéen a kaay gi di wal fajiri xëy duñu xibaar naan ñoo état bu Sénégal jamono ji ñoo nga ciy jafe-jafe ndax nag subvention énergie bi bi ñu ko xaymaa toll na ci sept cent milliards ñi nga xam ne nag ñooy waa FMI la ci Sénégal yaakaaroon de waaye nag ñoom dañoo lànk ba tëdd sa naaj ndax dañoo jàpp ne li nga xam ne moo gën a yéel a kaay gi di ñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bi ba léegi pënd ba wureeku la coow laa ngi mel ni tulleeg màlle ni ki démb nag am na organisation société civile boo xam ne janoon nañu ak taskatu xabaar yi ñoom nag nee nañu Macky Sall na respecté li nga xam ne mooy constitution bi Macky Sall na xam ne mooy ñoo tàkk dugg ci ci déndu Afrique mën na la nga force lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat moo ko daal waral kon nag loolee war nañu ñu musiba ma ba na scandale am na ci incohérence yu bare bari yoo xamante ni moom la fi état bu Sénégal teg journal bi sax ni mu ko tuddee mooy délinquance double XL te nag ñi nga xam ne ñooy waa Cour des comptes ñoom santaane nañ ba tey ñu topp nag waaye nag ba léegi France dali diwaanu Thiès ngir nag pose première pierre lu jëm ci wàllum classe préparatoire waaye nag Benno Bokk Yaakaar ca diwaanu Thiès sagara nag am na ñoo xam ne dañoo mer ba mara journée de taali dañoo boycotté ñëw Macky Sall sa Thiès ay leader ku ci mel ni Mbaye Jonn dafa boycotté Maodo Malick Mbaye dafa boycotté Aliou Sarr dafa boycotté Habib Niang dafa boycotté journal bi nag nee li nga xam ne moo ko waral njort nañu ne organisation manifestation bi nga xam ne moom la teg ci loxol Mamadou Lamine Massaly ak ki nga xam ne mooy Yankhoba Diattara loolee moo ko waral yéen a kaay gi du A xibaar nag naan ñu combat bi nga a dox moom la ko nees defee woon boobaak léegi toll na ji fukki ak benn mën ngeen a abonné ci seen chaîne YouTube Bawol Info TV ngir ngeen di mën di déglu seen revue de presse ak Abdou Khadre Seck